mbokk yi daleen ak jàmm Mbayang Diop ndax du mujje fa alkaali si sa mujje woon maari day taali ñaanu luñ ko ko waaye mooy li nga xam ne moom la ay mbokkam ragal moo waral ñu fëkk seen ngémiñ nag di yuuxu si biir yéene kaay bi di La Tribune di woote wàllu seen doom jooju nga xam ne mu nga foofe sa diwaanu Arabie Saoudite ñu teg ko loxo ñoom ñu ngi naan cellule ba mu nekk nag lépp ñetti weer a ngi nii dégguñu ko te xamuñu si li mu nekk te moonte bañ ko mujjee dégg moom si boppam moo leen waxoon ne dafa nekk si ab tawat si xamante ni bii boobu ba léegi amuñu si benn xibaar fàttali ne Mbayang Diop moom mu ngay tëdd si biir kaso yu Arabie Saoudite si atum 2016 ba léegi ginnaaw bi nga xamante ni bii da doon jàppante ki nga xam ne moom la doon liggéeyal ba mujj ko faat moom Mbayang Diop tawat si biir kaso yu Arabie Saoudite ay mbokkam jaaxle ragal li daloon Alcali Cissé daal di mujjee si moom Moussa Koulibaly mu ngi fii si diwaanu Sénégal si Bakel mooy ki nga xamante ni bii réewum France ñu ngi ko doon toppee mbirum terrorisme ba daanoon ko lu toll si fanweeri at yoo xam ne da ko waroon a tëdd moom moomee nag yenn kaay bi di libération naan topp nañu ay trasam ba gis nañ ko si diwaanu Bakel am na fii lu toll si juróom benn weer moom mii naroon fee takk soxna benn gone gu jigéen gu tudd Marème réewum France nag dafa amuloon si réewum Sénégal li ñuy wax commission rogatoire maanaam gëstu mbiru Moussa Coulibaly ak lan lay def si doonu Bakel li ñuy sàkk ñoom ñu gëstu te indi sa ay leeral waa Forum Civil la mooy si coow li nga xam ne moo am si intrant yi Forum Civil si njiital ki nga xam ne moo di Birahim Seck nag mu ngay laaj ñu indi ay leer si moom la mbir ak koppar yi nga xamante ne bii ñoom jàpp nañu ne egg na si ñetti téeméer ak juróom-benn fukk si ay milliards suñu koppar si coow li nga xam ne moo juddoo si intrant yi coow lu nekk si biir mouvance présidentielle bi nag mooy li nga xamante ne bii daanaka moo gën a lëmbee bërëbu waxtaanukaay yi fii si biir réew mi waaye tamit fës na bu baax a baax si yenn yi nga xamante ni bi xëy nañ ci àddu bu baax Sud Quotidien xëy jox kàddu gi Momar Diong ginnaaw bi nga xamante ni bi mbiicoog mbaaloo ak yàkkante musiba ak mbelengaan ak tamante gi mu ngay fës si biir APR mu ngi naan lii lépp nag dafay gàkkal bu baax a baax dellu président bi ak gouvernement am gi yëpp Abdoul naan moom kay du yàggati dara léegi président de la république moom si boppam indi saafara si moom leen mbir yooyu lay kàddu Abdoul Mbaw ñu fekkaat ko si biir yéeni kaay bii di Le Quotidien Momar Thiam di ko feelu naan ko moom kay wax ju ñaaw ji nga xam ne mu ngay tukkee si gémmiñu Yakham Mbaye ak Moustapha Cissé Lo lu baax si président de la république waaye tamit dafay gën a ñaawal ab liggéeyam gàkkal ab deram mel ni moom si boppam njiitu réew mi léegi mu wut ay saafara si mbir mi tax grand place naan Macky Sall kay léegi mu génne boobu lee karawaas mi ngir saafara ko noonee la ko odia si biir la turbine daat koy nataalee mel ni président mer na lool ki mer jamono ji bay futt moo di Souleymane Teliko mi nga xam ne moo jiite union des magistrats du Sénégal si biir enquête yéen kaay Souleymane Teliko mu ngi fay àddu jëmale su mbirum indépendance justice bi nga xam ne moom la ñu wax fii si réewum Sénégal condition yi nga xam te ni bi ñoom la ñu liggéeyee ak conseil bi nga xam ne moo ëmb magistrat yi fii si réewum Sénégal Souleymane Teliko naan lu tollook ñaari at ngi nii amuñu benn avancement ngir benn décret boo xam ni bi suñu wuñ ko ba léegi naan koy mbirum indépendance de la justice ak am si ay kàddu rek la yem waaye kenn mosu koo doxal mu ngi naan nag conseil bi nga xam ne moo ëmb magistrat yi fii si réewum Sénégal li nga xam te bii moom la ñuy xaar si moom di addu jamale si bi nga xam ne moom la ñu amalee si Mamadou Wuri Diallo ngi naan métti na lool waaye du loo xam ni bii mu ngi soog am li nar a am si ayu bés yi ñu nekk Le Soleil yéene kaay xëy di ko xamle naan marché Gueule Tapée bi dinañ ko tëj si biir semaine xam ne moom la ñu nekk Ousmane Ndoye di maire ba moo ko xamle ginnaaw bi nga xamante ne bii mu ngi naan am na ay liggéey yoo xam ne moom lañ fa naal ngir gën a yeesal marché ba ngir it yokk sécurité recruter ñi nga xam ne ñoo fa nekk ndax marché bi dafa màgget foofu ci diwaanu gël Tapée gël Tapée ba Parcelles Assainies jàpp Pikine combat bi nga xam ne moom lañ doon xaar dafa mel ni lépp sotti na suñu làmb xëy di wax naan ko Nicolas am na combat bu mag bi nga xam ne moom la ñëpp bëggoon Ama Baldé Modou Lô dinañ ko finaliser si altine ji bu ñu sukkandikoo si yenn bi mu ngi naan Modou Lo nag dinañ ko fay lu toll si 150 millions Ama Baldé nangu na 90 millions yi nga xam ne moom lañ ko jox. tëjee ak xibaar bu tiis bi nga xam ne moo dal si këru tasuxaayu xibaar yépp nag rawatina Walf Quotidien bi nga xam te ni bii ñàkk nag ki nga xam ne moo di directeur de publication am. journaliste bii di Abdourahmane Camara génn àdduna ni ki démb yenn kaay yépp nag xëy di jaale ñi nga xam te ni bii ñoo di ay mbokkam. xëy di jaale presse Sénégal ak waa Walfadjri Walfadjri moom si boppam fësal ko si xët wu njëkkam naan kamu fekki na ki nga xam ne moo di Sidi Lamine Niass ak ay kàddu seede yoo xam te ne bii ñu bëri seede nañ ko si moom di journaliste bu ràññeeku boo xam ne ñëpp rafetlu nañu ab liggéeyam di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana jërë ngeen jëf mbokk yi di daje ba ëllëg incha allah